neex ma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laay yaa tuddee Lamp Fall man Cheikh li laay yaa woote màggal Touba li laay Xalifa Sall ak ñi ngeen àndal ñëpp def rafet na def rafet na te yëfi kilifa la kon nag faw nu bég ci mi ngi koo fi gis mu ñëw fi rek. nee na mi ngi leen di wax ne koo fi gis mu ñëw fi rek. dafa xam li yàlla def ci Serigne Fallou. dafa tem nangu tem nangu ko. moo fi indi ñëpp moo fi indi ñëpp. rawatina yéen ñi nga xam ne wax dëgg yàlla. rawatina yéen ñi xam naa ne seen jot néew na lool. rawatina jamono yii ngeen toll. rawatina jamono yii ngeen toll. coow li bari na. defoon naa ne mënu leen a génn jëm fenn fi mu ne. defoon naa ne sax yéen mënu leen a génn fi mu ne dem fenn sax fi mu ne. loolu moo gën a réyal seenu ñëw. nee na loolu moo gën a réyal seenu ñëw. li ma jàppoon ne mënu leen a jëm fenn fi mu ne. li ma jàppoon ne mënu leen a jëm fenn fi mu ne. te ngeen jóg ñëw fii. te ngeen jóg ñëw fii. loolu moo gën a réyal seenu ñëw. loolu moo gën a réyal seenu ñëw. mi ngi leen di bëggee fuñ toll. mi ngi leen di bëggee fuñ toll. lii lépp. fi mu ne lii lépp. li ko waral li ko waral. li yàlla def ci Sëriñ Fallou rek tax. nangu li yàlla def ci Sëriñ Fallou rek a tax. léegi nag loolu. léegi nag loolu. doxal ngeen ko. doxal ngeen ko de. bisub Sëriñ Fallou bii. bisub Sëriñ Fallou bii. di Kazu Rajab. di Kazu Rajab. ku nekk fu sori nga jógee. ku nekk fu sori nga jógee. waaye li ngay jóge jóge fu sori. waaye li ngay jóge jóge fu sori. sëriñ lu jaral na la. sëriñ lu jaral na la. dox ci naaj wi. dox dox ci naaj wi. dugg ci oto yi lu mu xat-xat. dugg ci oto yi lu mu xat-xat. ñëw fii. ñëw fii. ngir moom. ngir moom. toogaay bi. toogaay bi. lu mu xat-xat. lu mu xat-xat. ak lu mu métti métti. lu mu métti métti. sëriñ Fallou jaral na la ko. sëriñ Fallou jaral na la ko. loolu nag baax rek a tax. loolu nag baax rek a tax. moo tax. moo tax. seenu ñëw fii. seenu ñëw fii. bég naa ci. bég naa sedd na ci. sama xol sedd na ci. maa ngi leen ciy ñaanal. maa ngi leen ciy ñaanal. kenn ku ci nekk. kenn ku ci nekk. lépp lu la sori. lépp lu la sori. te muy loo bëgg. te muy loo bëgg. yàlla na ko yàlla xë yàlla na ko yàlla xëccal ba mu agsi ci yow. yàlla na ko yàlla xëccal ba mu agsi ci yow. lépp loo xam ne lu la jege la. lépp loo xam ne lu la jege la. te nga ragal ko. te nga ragal ko. yàlla na ko yàqal ba yàlla dàqal ba mu sori la. yàlla na la ko yàlla dàqal ba mu sori la. li ci des daal mooy. sëriñ bi nee na li ci des nag mooy. sëriñ Fallou. sëriñ Fallou. ku ko def waay ku ko def waay def ko xarit def ko xarit ba tax nga ñëw ndindi ba tax nga ñëw ndindi foo demati ci àdduna foo demati ci àdduna ku gis rek ku gis rek na nga yor melo woo xam na nga yor melo woo xam ne ku la gis xam ne waaye Fallu nii lay mel ku la gis xam ne waaye Fallu nii lay mel ci yar ci yar ak ci teggin ak ci teggin ak ci suturaal jaam ñi ak ci suturaal jaam ñi di leen wormal di leen wormal di leen màggal di leen màggal leen bëgg di leen bu leen toroxal benn jàmm sëriñ bi neena bu leen toroxal benn jàmm bu leen mettital benn jàmm bu leen mettital benn jàmm ndax jaam ñi kat. sëriñ bi nee ndax jaam ñi kat. yàlla def leen bind. yàlla def leen a bind. ba noppi bëgg leen. ba noppi bëgg leen. kon nag. kon nag. kenn warul leen toroxal. kon nag kenn warul leen a toroxal. kenn warul leen a mettital. kenn warul leen a mettital. bu leen gis. bu leen gis. na leen wormaal. na nga leen wormaal. koo ci gis ko ci gis rek. warmal ko warmal ko. magal ko magal ko. yeeram ko yeeram ko. jox ko cieur bu kawé jox ko cieur bu kawé ngir yalla ngir yalla ko def señ fallu muy saway ko def ko def señ fallu muy saway lima wax nak lima wax nak fépp la fépp la fépp la waree. nee na wax nak fépp la waré waye nak def señ fallu waay. waye nak def señ fallu waay. def ko sëriñ. koo xam ne kii sëñ Fallou sa waay la. képp koo xam ne kenn. jëw kenn. waratoo jëw kenn. suufee. ngir kenn ku nekk. kenn ku jaam bu ne. jaam bu ne. da war a bëgg. da war a bëgg. mu kawe. mu kawe. am jamu am am jambu am jamu am jamu xolam di naat fu mu xolam di dal fu mu xolam di naat fu mu xolam di naat fu mu toll def day ku def day te def ko ni ma waxe te def ko nak ni ma waxe ngir yalla ngir yalla te ko def tey bu subaa nga bàyyi te ko def tey jii kat bu subaa nga bàyyi nga dëkk ci rek nga ci rek ci def day ku ci def day benn at ñaari at. benn at ñaari at. ñetti at ñetti at. yoo xam ne raxoo ko benn yoon yoo xam ne raxoo ko benn benn yoon. wóor ne toroxaloo fi benn jàmm. wóor na la ne yow kat toroxaloo fi benn jàmm. metti teloo fi benn jàmm metti teloo fi benn jàmm. yàlla na defal teraanga bu rëy. yàlla na defal teraanga bu rëy. ku bëgg nag. mosal li ma wax mosal li ma wax. boo ko mosee. boo ko mosee. ba muy ñetti ba muy ñetti te li ma wax gisoo ko. te li ma wax gisoo dana ma jaaxal dana ma de. rajo bi wax ji baamu te delluwaat ci ñi nga xam ne moom day ndax jaam ñi kat. ndax jaam ñi kat. wala xadu karam naa bànni aadama. wala xadu karam ba mu jeex. ba mu jeex. loolu yàlla ko wax ci alxuraan. loolu kat yàlla ko wax ci alxuraan. kon nag. kon nag. ku bëgg a jubóog moom. kon nag ku bëgg a sunu borom. teralal ko jaamam ñi. teralal ko jaamam ñi rek. waaye jaamam ñi kat. waaye jaamam ñi kat. ku leen di toroxal ku leen di toroxal. ak di leen métital. ak di leen métital. ak di leen ñaawal. ak di leen ñaawal. sa digganteeg moom la de. sa digganteeg moom la de. bu leen teqatal kenn. bu leen teqatal kenn. bu leen jëw kenn. bu leen jëw kenn. fexe leen lu bu leen kenn ragal. fexe leen yéen bu leen kenn ragal. bu leen bokk ci nit ñi nga xam ne. bu leen bokk ci nit ñi nga xam ne. ku leen seen rek tiit. ku leen seen rek tiit. fexe leen bokk ci nit ñi nga xam ne. fexe leen a bokk ci nit ñi nga xam ne. ku leen seen rek. ku leen seen rek. bég bég. yàkkawuli ku leen bëgg bëgg bëgg yàkkamtee gisee ak ñoom. yàkkawuli ku leen yàkkamtee bëgg a gisee ak ñoom. waaw dama leen a wax ne. waaye dama leen wax ne. li ma leen wax. li ma leen wax. ku ko mos ku ko mos ñetti at ñetti at yoo xam ne yi raxoo ci dara yoo xam ne yi raxoo ci dara nga def ko ngir ngir ngir bëgg ngërëmul yàlla nga def ko ngir bëgg ngërëmul yàlla man de man na maa ne man de man na maa waat ne da nga gis xéewal yu yees da nga gis xéewal yu yees ak jàmm ju ju ëpp ji nga yoroon ak jàmm ju ëpp ji nga yoroon da ngeen ko def na ko def wax ne waaye wax ne sëñ Fallou nga sëriñ Fallou daal nga waayoo ñëw ndindi ñëw ndindi jóge fi dem jóge fi dem di toroxal jaam yi di toroxal jaam yi kooku day rafetul kooku day wax dëgg yàlla rafetul du yoon de du yoon de sëriñ Fallou de ko bëgg sëriñ Fallou de ku ko bëgg def ko waay def ko waay da ngaa war di tëral nit ñi rek. da ngaa war di tëral nit ñi rek. loolu daal. loolu daal. moom bi nee na man moom laa leen di wax. man nag. man nag. yéen ñëpp nag yéen ñëpp. samay xarit ngeen nag bëgg sëriñ Fallou bëgg mel nii moo tax ngeen mel nii waaye man ngeen doxale waaye man ngeen doxale seen diggante seen diggante ak sëriñ Fallou ndax maa ndax maa fii nag kon ku ñëw ku ñëw fii nag doxale si diggante ak sëriñ Fallou man nag man nag xam naa ne. xam naa ne. li ma leen wax. li ma leen wax. ne na ngeen ko def. ne na ngeen ko def. dama koo xam. dama xam de. dama koo xam de. dama koo waxuma lu ma xamul de. nee na waxuma lu ma xamul de. di di di di di di di di jort rek di wax. nee na daal toog rek di jort di wax. duma def loolu de man def lu xam lay wax lu xam lay wax naa leen ñaanal nag ci yàlla waaye nag nee na naa ñaanal nag ci yàlla te ndindi alquran alquran julli julli bu dee ay salaatu ala nabi. bu dee ay salaatu ala loo ci xalaat rek. loo ci xalaat rek. sëriñ Fallou lu sëriñ Fallou def na ci lu ko fii ci nit ñi. doomi sëriñ Touba baax yi doomi sëriñ Touba yu baax yi ngay dégg. ku ci nekk. ku ci nekk. sëriñ Fallou teral na la fii ci nit ñi. sëriñ Fallou teral na la fii ci nit ñi. yu baax yu baax yii. di ay ay sëti yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ci bare bare. ci bare bare bare. Serigne Fallou teral na leen fii. nit koo xam ne kii dafa néew doole. nit koo xam ne kii dafa néew doole. am soxla su ko bett. am soxla su ko bett. soxla ne kii soxla soo xam ne si munu koo faj. mu jaaxle ca mu jaaxle ca lool. te soxla si mënut a te soxla si kat mënut ñàkk faju. fekk na Serigne Fall fii ci fekk na Serigne Fall fii ci Ndindi. soxla soosee mu faj. soxla soosee Serigne Fall faj ko. ba kookee xolam set. koo ba kookee xolam moo tax Ndindi. moo tax Ndindi. dafa saf sàpp ak lu sàpp ak lu baax. ba nga xam ne. ba nga xam ne. barab yi gënal suñu borom ci kaw suuf. barab yi gënal suñu borom ci kaw suuf. ndindi ci la bokk ndindi ci la moo tax. moo tax. toog fi wooye suñu borom. toog fii ci ndindi woo suñu borom. mu dégg la mu dégg la. jafewul jafewul de. ñaan ko fi mu may la it. ñaan ko fi mu may la jafewul jafewul de. loolu sëriñ Fallou ko fi def. loolu sëñ Fallou Mbacke moo ko fi def. kon daal. kon kaddu yaa ngoog président. waaw ah, la leen daal li ci des mooy ñaanal leen rek ngeen mu ci biir rek. nee na dugg ci biir rek. xéwlu xéwlu. te yéen ñëpp na ngeen maase ci. te yéen ñëpp nag sëriñ bi ne na ngeen maase ci. ñaanal sëriñ Muntaxa. ñaanal sëriñ Muntaxa. mu yàgg fi wér. mu yàgg fi te wér. dañ dégloo tuuti yi ma ne. nañ ñaanal sëriñ Abo Mbacke. mu yàgg fi wér. mu yàgg fi te wér. ñoom kat seenu yàgg bi. nee na ñoom kat seenu yàgg bi. am na solo am na solo de. ndax dañuy digle. ndax ñoom kat dañuy digle. te li ñuy digle. te li ñuy digle. lu nuy jëriñ rek la lu nuy rek la ñu. ne fu mu toll di digle nag. koo xam ne fu mu di digle nag. te lim lay digal. te lim lay digal. lu lay jëriñ la. lu la. adduna ak alaaxira. adduna ak alaaxira. war ngaa ñaan mu yàlla. war ngaa ñaan mu yàlla. yi ngeen def yëpp. nee yi ngeen def yëpp. bëgg ngërëmul yàlla rek la. bëgg ngërëmul yàlla rek la. bëgg ngërëmul yàlla rek. nga yàlla rek. moo tax ngeen mel nii. moo tax ngeen mel nii. te ngërëmul yàlla. te ngërëmul yàlla. ku ko bëgg rek ku baax la. ku ko bëgg rek ku baax la. ndax ku bëgg ngërëmul yàlla. ndax koo bëgg. day fekk nag nga gëm yàlla. gëm yàlla. mooy tax nga bëgg ngërëmam. te yàlla koo gëm rek. te yàlla koo gëm rek. ku baax ku baax. wallaahi yàlla koo gëm rek ku baax. wallaahi yàlla koo gëm rek ku baax. waaw nii nii ngeen mel. waaw nee nii ngeen mel. ak lii ngeen def ak lii ngeen def. lépp lépp. bëgg ngërëmu yàlla bëgg ngërëmu yàlla rek la. yàlla na nu ko yàlla defal. waaw jërëjëf. Cheikh Fall nu laay yaa tuddee Lamp Fall man li laay yaa woote màggal Tuubaa li laay